Souleymane Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. voilà Souleymane Ndiaye nga nekk conseil juridique bu association des conducteurs du port autonome de Dakar euh, mhm. déjà ma lay laaj association bi naka la juddoo lan moo ko tax a juddu ak ci ban at la juddu. Euh, association bi mu ngi juddu en deux mille vingt et li ko tax a jóg nag mooy ay jafe-jafe yoo xam ne por mu ngi koy jànkonteel ak ay liggéeykatu por yi ñu ngi koy jànkanteel ak seen i bërëbu liggéeyukaay. Euh, yàlla dogal nag mu am ay xale yu bees yu dugg si ci liggéey bi am ay gis-gis yi nga xam ne moom la xale bu bëgg àdduna bëgg boppam bëgg ëllëgam war a am ñu xool ba xalaat ne ñoom liy waral tey jii ñu saafara seen i jafe-jafe yooyu ci seen bu liggéey waaye mooy ñu booloo ku ci mel ni Motam mi nga xam ne mooy président bi ak ñooñam yi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ci waxtaan yi ñu dem ba yàlla dogal ñu déggoo ne dañuy sos association bi ñu taxawal ko. Mm-hmm. tey jii seen nekkin ci port nekk nekkin bi nga xam ne moom la liggéeykat di am ci bépp bërëb bi muy liggéeyee. Euh, waaw léegi ñu gis ci 14 euh, avril bi si ngeen organisé woon benn marche pacifique mais euh, récemment dañ ko interdire lan moo waraloon ngeen bëggoon a amal manifestation boobu. Euh, manifestation bi li taxoon ñu bëgg ko amal mooy association bi biñ ko taxawalee dañoo bëggoon tamit saafara jafe-jafe yi nga xam ne ñoo fi nekk ndaxte jafe yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci liggéey bi yoon dafa teg saafara yi ba pare. Hmm. maanaam liggéeykat bu ne da ngay doxee ak kay liggéeyloo la nga fay am ak na nga fay liggéeyee yëpp yoon da koo xaatim ba pare te liggéeykatu port yi teguñ leen ci loolu maanaam ñi nga xam ne ñooy dawal camion yi biir port. Hmm. teguñ leen ci condition yooyu léegi nag. ñu janook autorités yi waxtaan ak ñoom ah amuñ lu lu lu liñ bëggoon liñ doon séntu ci kilifa yooyu amuñ ko ñu ne léegi nag nañu génn ñaxtu waxtaan ak askan wi ñu xam ne jafe-jafe yi ñu ngi poor ndax ëllëg leneen lu ca xew tamit ñu xam ne ñii yëglu woon nañu ba pare moo waraloon ñu def marche boobu bañ ko tàmbalee woon tamit le sept lañ ko waroon a def. Hmm. préfet bi ne kañ koy defee euh, day jaxasee nekkinu réew toogaayu réew mi. te day day gàllankoor tamit dem beeg dikk bi. Mm-hmm. ba mu gàntaloon ko. ñu bindaat beneen demande mu ne léegi da ngeen koy defi jiwee feneen. Mm-hmm. mais li wàllu li ci boor ak wàllam mënoo leen ko faa defee. Mm-hmm. ñu xam ne buñ ko nanguwul tamit duñu am li ñu bëgg ñu ne nañ ko defi jiwee foofu ñu defee ko foofu tamit ak communication bi nga xam ne moo ci war. journaliste si ñëw tamit ah xarale ko. waaw léegi euh, da ngeen am ay jafe-jafe yu baree bari moo waraloon mouvement d'humeur boobu est-ce que si yaatal mën nga ñu wax lan mooy seeni jafe-jafe jafe-jafe yi nga xamante ni les conducteurs du port autonome de Dakar ñu ngi koy jànkonteel. Euh, jafe-jafe bi njëkk ci camionneur port yi mooy euh, li yées ci àqu liggéeykat amuñ ko mooy ñu defal la contrat boo xam ne këyit la bu ñuy tëgg. Euh, muy wane ne yow kii lii la lay liggéeyloo lii nga wara a liggéey ak moom heure ngeen di commencé heure ngeen di jëm. Hmm. lii la lay fay weer euh, loolu tamit dëppoo li nga xam ne moom la yoon tëral ci ñi nekkinu liggéeykat bi ci liggéeyukaay bi kon tey maanaam ñi nekk port di liggéey borom camion yi nañ jàpp ne ay journalier lañu bi nga liggéey ngay fay ko boo liggéeyul doo fayee ko boo feebaree amoo lu la faj amoo IPRES amoo benn sécurité boo xam ne tey jii moom nga moom la ñu yoon di moom la yoon di aaree liggéeykat yi ci ba yeneen bërëb yi nga xam ne foofu la ñu nekk loolu mooy jafe-jafe bi nga xam ne moo ci gën a metti hmm. mooy njëkk tamit ci li nga xam ne moom lañ bëgg mu saafarawu waaw ndaxte société yi yi fa nekk dañ leen ne balaa ngeen di am droit exploiter dara ci port bi seeni liggéeykat da leen di defalal ay contrat te ña fa nekk amuñu ay contrat loola nag moom bokk na ci jafe-jafe yu njëkk yi beneen bi moom dafa euh, dafa tënku même ci euh, nekkinu doxalinu port port ni mu ni mu taxawee baaxul ci liggéeykat yi ndax liggéeykat yi da ngay da ngay ñëw port jógee fu sori ñëw war a soxla sa bopp pour dallu amoo foo dalloo ci sa biir camion ngay toog. Mhm. am na terminal yoo xam ne boo fa duggee lu ci mel ni Dubai port boo fa duggee tey war a jël sa conteneur mun nga faa def ñeenti waxtu ñeenti waxtu yooyu boo ci soxlaa sa bopp amoo fenn foo dem. pour mm-hmm. euh, régler ji problème boobu muy wàllu lekk muy wàllu euh, luy génn ci yow wala wàllu yow nga toog tàllalu wàcc oto bi tuuti sax mun a féex. Mm-hmm. amuñ dara lu jëm ci loolu. amuñ foo xam ne tamit boo sonee fa ngay gaare camion bi ba récupérer mun a ñëw liggéey jiwaat. duwaay pool boobu boo fa nekkee ba sa ba ba engin bi nga xam ne mooy teg conteneur yi bu paanee fa ngay fa fa ngay toog ba abadan doo xam bañ koy dépanne ba ngay soog a mun a génnaat mm-hmm. ndaxte matériel yi ñu yore tey ji dañoo màggee du matériel yoo xam ne mën nañoo liggéey ci réew moo xam ne kilifa ya fa ne ñu ngay saytu jumtukaay yañ fay liggéeyee mm-hmm. beneen jafe-jafe bi mooy tey jii da ngeen di ñëw euh, Dubai port boobu am na carte bu moo xam ne moom lañu moom la ñuy jox ñi fay dugg carte boobu chauffeur bu ko bu ko bu ko sànni chauffeur bu ne yow dootoo dugg Dubai port te mën nga cee ñàkkee sa liggéey bu fekkee ne yow sa euh, sa sa patron Dubai port la amal contrat yow dootoo fa dugg da nga fay jaaree tey jii am na chauffeur yoo xam ne euh, ay ñeenti weer ay juróomi weer liggéey ñu ndax carte boobu moo leen tere liggéey. dëgg la euh, beneen jafe-jafe mu ngi nii ci ñoom boo xam ne tey jii dañ dañ dañ dañ ñu ngi yore wàllu autorité port bi ñu ngi leen ciy sonnal ay njàpp yoo xam ne teguwul ci dara waroo taxaw fii wala fii nga bàyyi sa camion waroo ko fee bàyyi. te tax ba xam ñu leen ay espace yoo xam ne fa la oto yi war di gaare loolu yëpp amuñ ko ko mhm. da ngay ñëw ñu lay jàpp ci ay yu kenn xamut te njàpp yooyu ñu lay jàpp dèjà yow amoon contrat amoo salaire bu baax mais borom oto boo fay yow yaa koy fay ci sa xaalisu bopp jafe-jafe yi bëri nañ lool mais tey jii nii yii mooy yi nga xam ne ci yaatal daal moom la ñu bëgg mu saafaarawu port bi mel ni mu war a mel dëppoog jamono jii mu nekk nii mhm. liggéeykat yi ñu tegal leen li nga xam ne moom lañ moom moom moom mooy àq ak yelleefu liggéeykat d'accord loolu la kilifa yi. léegi après marché pacifique bi lan ngeen fas ne defaat encore si si kanam euh, lan mooy plan d'action bi. waaw ah, plan d'action bi moom dégg euh, dégg ngeen président bi. Mhm. ci biir yoo xam moom génne wuti sax ne dinañ dem grève. Mhm. te yàlla dogal na euh, association du dem grève wante ñu ngi benn syndicat ci biir association bi. Mhm. syndicat syndi association bi taxaw na ak syndicat maanaam tey jii association bi moom taxawee na côté bu ne ngir mën a. jot li nga xam ne tey jii moom moom la moom ci yoon. d' accord est ce que tamit euh, jéem ngeen waxtaan ak autorité yi yi nga xam ni ñooy comme ministre euh, du transport ñoom seen est ce que jéem ngeen leen euh, rencontrer pour ñu xam situation bi nga xam ni yéen a ngi koy dund foofu foofulee ca port bu Dakar. waaw ministre yeeg autorités yëpp ñi nekk port ak ñu yore administration beeg ñu yore sécurité bi yëpp waxtaan nañoo ak ñoom. ñi ñu jot a recevoir amuñ ci ñoom loo xam ne euh, dal na suñu xel ndaxte boobaak léegi waxtaan yi avancé wu demuñ fenn dañuy mel ni ñoom dañ lay tànqamlu rek dañ dañ lay déglu boo ñëwee ñu ah ñii de ñuy wax tey buñ paree ñu nga ci leneen suba. Mm-hmm. dañuy jàppee nag nit ñoo xam ne rek dañuy ñaxtu dañuy coow mais li ñuy li ñuy laajte sax xamuñ ko loolu lañ jàppee liggéeykat yi. Mm-hmm. tey boo leen amaluñ njëriñ boo xam ne tey jii gis nañ ne lii njëriñ la boo xam ne mënuñ koo gàntu dañ lay tànqamlu. Mm-hmm. Euh, ku ci mel ni ministre du transport def nañ lu ne pour gisanteeg moom mais problème bi yëpp ci directeur cabinet bi la ñuy càngee yendu nañ foofu ay yoonu yoon ay numéro la ñuy laajte ne ñu léegi après dinañ leen woowaat furaas ba tey euh, kilifa yi yore port ci boppam suñu ñetti demande d'audience a ngi ci ay loxoom te pourtant boobu ba léegi amuñ ci benn euh, dégg-dégg pour daf ñuy recevoir wala du ñu recevoir daf ñoo tànkam lu mhm. kon li des nag mooy tey ji ñu jël suñuy pexe bopp dox xool ba xam naka la réglé wee suñu jafe-jafe yi te nag bàyyiwul ci benn pexe bàyyiwul ci benn solution boo xam ne tey ji mën nañ ko jëfandikoo wante autorités yi moom euh, faaw day metti ñu soog wax ak dinañ fexe ba mu metti ba ñoom ñu soxla wax ak waxtaan ak ñun. Mhm. yow naka gisee déjà DG bi mu Mountaga Sy ni muy gérer euh, port bu Dakar pour yow est-ce que baax na wala baaxul. xëy na bu ñu xoolee ci côté xaalis beeg euh, avancement port beeg li nga xam ne moom la port bi di dugal xëy na mën nañoo ne baax na. Mhm. mais bu ñu xoolee nekki nit ñi nga xam ne tey jii ci ñoom lañ yaakaar pour poor bi tourner ñoom moom seen nekkin moom doy na waar côté boobu moom dara baaxu ci liggéeykat yi seen nekkin dara dara dara baaxu ci. d'accord kon daal gis nga ne ni muy gérer port bu Dakar des na lu bari. des na lu bari surtout nag ci wàllu liggéeykat yi nañ jox liggéeykat yi seen àq. Mhm. donc yéen mën nañu wax ni yéen ñi conducteur de euh, nekk euh, seen liggéey ci bu biir port bu Dakar dafa nekk liggéey bu am solo boo xam ne mënu fa ñàkk. Euh, liggéey bi mun ta ñàkk ndaxte pooru Dakar bi. Mhm. boo calculé quatre cent conteneurs par jour rek te ëpp na ko. Mhm. Euh, camion camion yi ko fay jëlee buñ taxawee ñetti fan génnewuñ bagage yooyu te ji ñaata nit. ñooy ñàkk seen i ci bagage yi nga xam ne moom la moo doon jaar ci conteneur yooyu di génn ci dëkk bi lépp luy dugg ci Sénégal port port boobu lay jaar bu dee ceeb port lay jaar bu dee carburant port lay jaar. Mhm. bu dee lépp loo nga xam ne ci wàllu dund la wala ci wàllu engrais wala yeneen yooyu yëpp port lay jaar ba ci yeneen produits yu vaisselle yeeg euh, matériel informatique électronique ak yooyu yëpp électroménager yooyu yëpp port lay jaar réew mi mhm. lay duggee. Mhm. kon nag ñooña di koy dugal di koy yóbbu ba Fongoli mi di koy yóbbu ba fu nekk ci biir Sénégal buñ taxawee di laajte seen àq seen yelleef bu fekkee ni kilifa yii yore réew mi tey ji bëgg nañu réew mi te xam nañ li ñuy yore lan la war na nañoo taxaw saafara loolu bu saafarawul yëpp tamit ñu def ci seen kéemtalaayu kàttan ba liggéeykat yi xam ne ah lii de fii la ñuy mën a yem. Mhm. waaw voilà kon euh, Souleymane Ndiaye maa ngi lay remercier bu baax a baax. ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax soxna voilà may fàttali ni yow yaay conseil juridique bu association des conducteurs du port autonome de Dakar noonu la merci beaucoup Souleymane Ndiaye jërëjëf ñoo lay jaajëfal bu baax ba ngeen ñu mayee kàddu tamit ñu mën a wax euh, fu fee foo xam ne buñ bu nekkoon suñu sago rek duñ fa duñ ñu fa dégg kon ñun ñoo leen di jaajëfal bu baax a baax di leen di ñaanal yàlla taxawu leen ci seen liggéey merci beaucoup Souleymane Ndiaye merci beaucoup